mais El Hadj. Mhm. rakkaaju jot na de. waaw rakkaaju jot na. barke <laughs> maa ngi lay ziar ñuy waajal gàmmu Seex Seydil Hadj Malick si. mais El Hadj gis nga réew mi. waaw. gis nga univers bi ni mu changé. billahi gis nga jaww ji ni mu neexee. Mhm. gis nga climat bi sax ni mu neexee gisoo jamono yi da doon tàng rek. billahi looloo lay wan ni baa ngi Sénégal. sallallahu alayhi yii dama lay wax. Mhm. ku soxla Seydina Muhammad nekkul ca ruudu ba mi ngi Tiwaawan. maa la ko wax man. yow baa ngi fii. boo julee gee ba pare bis bu jot yéenay bokk burdu. allahu akbar. maa na ko wax man. mais Sam Sidi Hadj Malick li mu nu indil kado boobu ñun taalibi Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif ñun taalibi Sidi Hadj lan lañ koy fayee. mais looloo tax yonent bi ne fi ñun El Hadj Malick lañu xamul lu mu doon. barke alxuraan. xam nga gàmm. Mm-hmm. bu ajotee fi mu ne ngi tànt mm-hmm. ñëpp a woote mm-hmm. mais dafa loo xam ne nga jot ko nga jot sirru bi moo ko gën a yomb dëgg la sirru la yàlla jël def ko ko muy cadeau def ko ci enveloppe jox ko Seydil Hadji Malick Allahu boo bëggee sa gàmmu safe da ngay ñëw ci moom par force ñaan ko ndigal moom Seydil Hadji Malick mu jox la ndigal gàmm yi mu joxul ndigal benn safe wu ci mm-hmm. gàmm a safe moom la kenn xamul lu mu doon moom Seydil la kenn xamul lan xam nga ne yow phénomène nga ci tariqa bi xam nga loolu mais man lii ma mel yëpp Seydi Hadj Malick la ah moo ma fekk ci biir mbooloo mi seppi ma moom Seydi Hadj Malick kooku daf ma téye moom Maodo dama lay wax nag kuy tudd turam ak ku tudd turam xam nga nu baxal xeer ak kuy togg supp bu ñu yàkkandoowee rek am ko amul ñeex <laughs> am ko amul lan ñeex man maa la ko wax Seydi El Hadji Malick kuy tudd turam ak ku dul tudd turam boo leen xoolee. dana dafay mel ni kuy baxal ay xeer ak kuy togg supp bu ñu yàkkandoowee dina am kudul am ñeex. ki togg xeer ne moo am ñeex. mooy kiy togg supp. mooy supp bi moom la kenn xamul lu mu doon. billaahi barke xoolal ndaw ñi. xoolal ndaw ñi. am na ñoo xam ne barki dem lañ ñëw. Mhm. du nu ñu bite gàmmu jeexul. am na ñoo xam ne bu ñu ne ginnaaw suba la burdu lañ ñëw du ñu ñibbi te gàmmu jeexul. du ñu dem te bi ñu ngi waat wax rek. am na ñoo xam ne sañu sañu ñoo ñibbi. Mm-hmm. te gàmmu Tiwaawan jeexul. Mm-hmm. ndaw ñi. Mm-hmm. mais nag. lu yàlla defal Seydil Hadji Malick ci yonantu bi. defal ko ko ci Cheikh na Tidiane. yàlla xaasal na ci buni Serigne Babacar ci ndaw ñi. allahu akbar billaahi. moom cofeelam dañ koy jëlis ndaw ñi par at. moom Serigne Babacar si. waaw. la moom cofeelam. dañ koy jaliis nit ñi par at sañ sëñ Babacar ki gën a ki ki mujjee juddu moo lay gën a sañ sëñ Babacar xale bi am juróom-ñaari at ngay tudd sëñ Babacar muy jooy loolu jagle la yàlla la man barki démb am na koo xam ni papaam benn xaritam la ko tuddee bi muy xool photo sëñ Babacar boo ko laajee noo tudd daf lay joxoñ photo bi photo sëñ Babacar photo sëñ Babacar amagul ñetti at ah ilaa cofeelam la ñuy ndaw ñi par at moom Cheikh Seydou Aboubacar mais sëñ a ko wax wa bi daaka asbaha aynuhu bal zikruhu yahya ma al ajyaali jiilan jiila génération bu ñëw dañu leen di jalis cofeelu sëñ Babacar alaaj yàlla bu la bëggee dafay woo malaaka yi def réunion ni leen alaaji Mbengue Diop Mame Ndokh TV bëgg naa ko bëgg leen ko allahu malaaka yi ne yàlla bëgg nañu ko mu ni leen jël leen cofeel gi ma am ci moom tas ko ci ngelaw li ku nooyi ngelaw li bëgg ko ñu ne ko def nañ ko mu ne def leen ko ci lac de guerre bi ci ndox mi ku naan ndox mi rek bëgg ko loolooy loolooy tax nga gis nit ku ñëpp bëgg doo xam lu tax sëñ baa ñi ko bëgg ñëpp koo laajoon lu nga bëgg ko mun la ko wax. billaahi xamu ko barki alxuraan. ñi ko bëgg ñëpp koo laaj lu tax mu bëgg ko xam ko. fekk yàllaa jëli si cofeelu ni cofeelam ci ndaw da nga koy bëgg par force. par force. waaye kaay ma wax la. Ah. Seydil Hadji mm. boo ko bëgg la boo ko bëgg la bëgg. bu ko vérifié. boo ko bëgg bëgg. bu ko vérifié. boo vérifié rek bëgg. boo koy vérifié di ko topp. la ilaha illallah sa wax bi rëy na. moom li ma la xam naa ko de. booy vérifié alaaj maag di ko bëgg. barke alxuraanul karim man maa boo koy vérifié di ko bëgg. moom ñàkk bëgg gi ñàkk vérifié gi la rek. boo vérifié rek daal boo koy vérifié di ko topp te soo ko toppee rek bëgg ko. billaahi moom Alaaji Malick boo ko vérifié. loxo ndey jorom bi du la ko tegg ba keroog nga koy soob. Allah mais Sam lan ngay indi ren ci gàmmu ki dégg naa nga wu neex gàmmu ñëw na. gàmmu ñëw na. am na lu may waaj loo xam ne maak ndox TV ñoo koy waaj. waaw bu ñu dee suba la dernière bul di ci suba. en direct émission en direct fii ci ndox TV ca sama kër. sa bis bi kañ la. gàmm ba ci suba ga. mais Sam lan nga wax ci bis boobu. mboolem soppee Seydina Mouhamed yi rek bis bi seen bis la. woo nga ñëpp. ñëpp. ay waay bokk yi képp koo xamante ni sopp nga Seydil Hadj malik si képp ku sopp Cheikh Seydi Aboubacar si saam Mboup mi amul vie de famille ndax lan bëgg a teral taalibe Seydil Hadj Malick yi Samboub mi amul vie de famille ngir bëgg a teral taalibe Seydi Aboubacar Sy Samboub amul vie de famille ngir bëgg a taxawal samp samp mag ñi mu fi bàyyi muy samp Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif bi ay waay képp ku sàmm masa lebal teraa nga ñëw ci sa bis mbaa nga dégg ko mu mas laa bégal ci rajo mbaa ci télé ñu ngi lay ñaan buñ gàmmoo ba ci suba nga na nga ñëw ca bisub Samboub bi ku ci ñëw loo fi indi ci ci ci ci ci ah yooyu yàlla ci wërsëg dina la boole ci milliardaires Seydina Mouhamad yi na ñëpp ñëw man Alxaaji Mbégi Jóob ku ma fa dégg ni ma massa sàmm bis fan lañ koy defee fii rek ci ay wetu kër boo passé kër Abdoulaye Ndiaye rek romb MK bi mhm. jàkkaarloog tànt bi mais El Hadj mhm. na de rakkaaju jot na barke Seydil Hadj kon rakkaaju